ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri moom kuréel gii di Touba ca kanam jaare ko ci commission scientifique et culturelle mooy tabax ñeenti daara yu yees peq ci dëkk bu sell bii di Touba ci atum 2021 lii nag di benn ci fiñ ko war a tàmbalee rek war a toll ci juróom benn fukki daara bu ñu ci ji war jàll ci yeneen ñeenti daara yoo xam ne Touba ci kanam daf koy taxawal mu bokk ci daara yi nga xam ne yuy jege askan wi lay doon nekk daara yi Touba ci kanam yoo xam ne ay tànneefi Touba ci kanam ñoo fay jànge la war ci daara yi lépp nag Touba ci kanam moom mooy defar daara ji moom mooy warlul ña fay jàngi si dara loolu jàngi rek du ca war. njàng njàngale ñeel daara yi ñor loolu association Touba ca kanam Serigne Mamour Mbacke moom mi nga xam ne moo jiite commission culturelle et scientifique di wax ne du ñu yem foofee ndaxte danañ ci dugal yi kopparax ci dolli tàggat ay jàngalekat. yaakaar naa bii mooy atum ñetteel moo xam ne mi ngi def li ñuy wax maanaam réflexion daara yi bi mu njëkk a def mi ngi ko defoon daaw jéeg lu tolloon ci fanweeri daara ak juróom la ci defoon bu daaw bi it demoon na ba ci 71 euh, daara ren ji it ñu ngi naal 60 daara yoo xam ne dañu ko bëgg a réflexionné incha allah waaye ñu fu mu toll rek di xalaat loo xam ne moo tax daara gën a jëm kanam. ba daaw année boobu bi jàll daaw ci lañ def li ñuy wax formation sëriñ daara fi mu toll nii incha allah rabbi bu ren ji jël jàlle jàmm li ñu bëgg sotti danañ former 440 sëriñ daara incha allah ñu toog toogaat xalaataat ne dëkk bi jàngukaay yi xaw naa manqué te yitte ji yaatu na ci wàll googu ñu xalaat ne kat nañ kon def li ñuy wax daaray tànneef bu ñu ko bëggee leeral rek xëy ci ñëpp mën koo xam mooy daara publique jàng ñib lay doon daara joo xam ne ñi fi jàngee dañuy xëy si di gontu si ñu ngi ko fas a tëral nag mooy dañ koy def eh, ñaari genn wàll mu daara bu nekk dana jël juróom fukki donga fukk ak ñaar fukk góor yu jigéen ñaar fukk góor ñaar fukk eh, donga yu jigéen ak yu góor bu ci nekk nag góor a jàngal ñii jigéen ñoo jàngal ñii ndax mu gën a dëppook ak charte bu noppee nag incha allah xam ne nañu ko bëgg tànn rek mooy eh, ubbi ko rek képp daal koo xam ne xëy na sa sens moo ci nekk ñu bañ koo tànn ñu tànn ko ci ak maandu maandu gu mat sëkk bu ko defee tamit ñi jàngale ñu tànn lañ tànn goo xam ne ku ca nekk da am euh, mustawa bi ñu yittewoo ci jàngale alxuraanul karim njàng mu set moo xam ne dana mel niñ ko bëggee li ko waral nag mooy rek euh, taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci jàngale ci Touba dañu bëgg incha allah rabbi ren jii bëgg nañoo taxawal ñeenti daara waaye lim bi moom bëgg nañ mu dem ba téeméer ba nga xam ne Touba foo dëkk ci Touba boo génnee rek jàng ji bi wax sa kër sa kër sa kër way jur mu teg bëtam ci yow ngay jàng wàcc te daara yooyu incha allah bu ko yàlla dogalee nit sax waxuma la sax firij wala mën a jàng waaye mën faa dem sax ba mokkal alxuraan mokkal gu set njàng mu set mi dëppoo jamono loolu daal moo taxoon ñu taxawal liggéey boobu di ci woo ñëpp nag di sant tax di sant ñëpp di ak taxawaay yëpp mën na sëkk macha allah sant sëriñ xabaat mi nga xam ne moom sëriñ Fallilou di ko dalal bu baax a baax a baax. ci diwaanu Guédé daara ja moom tàmbali woon nañ ko tabax Touba ca kanam nam mu ko yeggalee sëriñ Abdou Lahad Abibou Mbacke moom mi nga xam ne moo wax ci kàddu Touba ca di wax ne fas nañu yéene yeggale boobu mbëbët bu sumb yeneen. suñu farlu ñaan ñu ngi lay nuyu ay waat waat bu baax ci muy fekk daa boo xam ne tàmbali woon nga ko waaye nga gis Touba ca kanam jëm ca nga gàttandu leen ca fab ko yëkkati ko teg seen loxo ne leen leen àggal leen loolu mooy lu yàlla teppataal sëñ Touba bu doon sa jëmm nga ci nga ci doon def nga ci doon wane kon doo ko defe noonu kon sëñ Touba kële itte sa jëf ji firndeel taxam nga di ko def wala bëgg ku la ci dégg wala bëgg ku la ci gis kon doo ko tekki loolu Touba kon da nga koy àggale fexe àggale bu àggee nit ñi nit ñi ñëpp yëpp waaye nag ko tegee ci loxo sëñ Touba kanam tegtal Touba ca li ñu yow lépp sëñ Touba ko wéy ci sëñ Touba ñaan na suñ Mamadou Xabaan moom bu baax ci liggéey bi nga xam ne ay kilifaam am ba def ko ci loxoom lañ séentu ci moom yàlla nañ ci gis lu ko kawe ci sëñ Touba mi ngi ciy liggéeyal yàlla na la ci jàppale te baax bi ko bëgg yóbbu ak ci bëgg ak noo ko bëggee nga man ko ne defe ànd ko wér ak mucc ko ñun mu nekkoon jotaay bu am solo ay kilifa yu takko takko bokkoon ca ña nga xam ne ñoo doon teg ñaari xeer ca Gédé ak ca Bagdad Serigne Xabban Mbàkke moom mi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa dénk daara yi gunge woon ci boobu jotaay Serigne Abibu ak Serigne Abdou Abibu. jàngale moo moo moo ko. liggéey rek ko war ak jàng ak jaamu yàlla. kon bu bu nekkee ci woowu sas. kon nag bu nekkee ci sas woowu. ñu am jëwriñ ji mel ni sëñ Mamadou Mountakha. ñu am jëwriñ ji mel ni sëñ Mamadou Mountakha. yàlla jaay te amiin. nga xam ne amul benn soxla du liggéey sëñ bi. amul benn soxla du liggéey sëñ Tuubaa rek. li ne ku dem ma dem ku demul ma dem joojee. li ma waxoon ne ku dem ma dem ku demul ma dem joojee nag. waxtu wala da koy lay doxee. mu yàgg fi lool. kattan. loolu dafa bëgg kattan gu kattan gu bëree bëri. ñun taalibe yi ñu ay xéwal ak tawfeex. ak ñun donga yëpp defal ak tawfeex. ba mu joxañ rek. mën a àgg ni mu ko bëggee. commission culturelle et scientifique di leeral ne gannaaw ñaari daara yi nga xam ne danañ ko taxawal ci Guédé ak Bagdad yeneen ñaari ci atum 2021 ñu ngi ko fas yéene yóbbu Lansar ak Daaru Mannaan. ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na. wajal ilaahi maskani Touba. misras mi abi jaayi xayri man abaa